dal ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen. Euh, ci ci pandawu CRD bi euh, li nga xam ne moo ñu indi woon tey mu nekkoon soxla. xëy na waxtaane nañ ko ba ay buntu ay pexe génn na la ca gënoon a am solo daanaka solution am na ci niveau régional bu ñu sukkandikoo ci rapport bi nga xam ne moo bàyyeekoo Kébémer te ngeen organiser woon foofu CDD euh, ci ñaari domaine lañu amoon as tuut lañ ñuy xaw ragal mooy CSA ak Ageroute nee naa leen sànq am na engagement yi ngeen jël pour jafe-jafe yooyu xëy na baña am ma ne leen ba ngeen demee ci coordination ba bu demee ba ngeen gis ne xëy na mënu leen matal seen engagement nangeen ñu ko wax gouverneur def ay pexem bu weesoo ñaari service yooyu yeneen service yëpp nga xam ne jël nañ kàddu euh, nee nañ benn jafe-jafe du am engagement yi nga xam ne jël nañ ko bu soobee yàlla dinañ ko matal man tamit fañ ma interpellé mu nekkoon ñetti fànn nee na dinaa ko jébal ñi nga xam ne mooy kilifa yi nekk ci kaw mooy mbirum bâche mbirum chapiteau ak mbirum chaise ci cérémonie officielle bi booba ministère de l'intérieur dina jot suñu bataaxal lu jëm ci mbirum brigade bi tamit nee naa leen bu soobee yàlla ministre des forces armées dinañ ko wax pour bu fekkee ne mën na ne brigade de proximité bi nga xam ne ma nga nekk euh, ci Mbàkke Kajoor mu ubbil ko euh, mu ubbil ñu ko pour yokk kaaraange pèlerin yi euh, dernière interpellation bi moo nekkoon ministère de transport li jëm ci piste yi nga xam ne war na dugg Mbàkke Kajoor te pèlerin di ko emprunté te mu nekk ay piste yoo xam ne dem na ba dégradé yooyu tamit euh, ministre des infrastructures bu soobee yàlla euh, dinañ ko jébal bataaxal ci euh, cadre boobu alors beneen commentaire nag bi may def de façon générale muy dem ci chef de service yi événement religieux yi di màggal di gàmmu dafa am ñaari dimension muy dimension socio-économique ak dimension religieuse dimension socio-économique bi mooy ci occasion yi généralement la kër diine yooyu di profité wu pour li nga xam ne amoon nañ ko ci existant ñu renforcer ko ci wàllum infrastructure li nga xam ne amuñ ko tamit te ñu yaakaar ne bañ ko amee da leen di gën a yombalal liggéey bi gën ko yombalal pèlerin yi ñu def ko doléance moo tax dafa nekk occasion yu am solo ci dundu këru diina yooyu pour ñu renforcer wu en matière de d' infrastructure donc dimension socio-économique boobu bu ñu ko perdre de vue ba tax na képp koo xam ne jël nga fi engagement fexeel ba engagement boobu nga matale ko euh, ci cadre boobu sëñ bi nee na ci coordination bi le 19 décembre na ñëpp ñëw xool def reconnaissance xool engagement yi fañ ca toll bu fekkee ne am na bu matul ñu matale ko bu dee am na buy sooxe ñu jubanti ko euh, ndax bés bi le vingt 23 décembre la donc à partir du 19 na service yëpp jéem a déporté wu sur le terrain xool le niveau de mise en œuvre des engagements comme ça ñu mën a rectifier li nga xam ne xëy na matul euh, dimension religieuse bi mooy kilifa diina yi dafa am wàll bu am solo boo xam ne dañ ko am ci réew mi muy tabax jikko yi mission boobu nga xam ne moom ngeen am ba ngeen ko réussir ñun dinañ réussir suñu mission ci wàllum administration lu tax bu jikko yi rafete commandant de brigade bi dootul bëri liggéey bu jikko yi rafetee juge ba nekk ci tribunal ba dootul bari liggéey looloo tax yéen li ngeen représenté ci société dafa am solo ba tax na lépp li ngeen yëkkati ñun administration dañ ci war a dugal suñu loxo dañ ci war a jàpp ndax mel na ni ñun ngeen di liggéey en définitive ñun ngeen di liggéeyal en définitive jikko yi bu rafetee rek kenn du sol donc ba tax na lépp li ngeen soxla en terme d'accompagnement côté administration bu fee bu dee mu ngi di ngeen ko am donc bu loolu weesoo nag euh, yaa ngi ma doon gërëm mais maa la war a gërëm waaw ndax yow tamit ni nga conduire débat yi rafet na de seen prise de parole maa ngi koy rafetlu ndax ailleurs gis naa délégation yoo xam ne ay ay contradiction dafa am ci seen biir ay tendance ba nga xam ne dangay hésiter sax pour joxe kàddu gi ndax dangay joxe kàddu kee waxee ne kee waxee na le yàlla dogal na nag loolu amul seen biir yéen a ngi def benn bloc nekk benn famille wane ne benn kilifa ngeen am wane ne yenn a bokk yoon donc loolu dama koy rafetlu di leen ko santé nag ndax man tamit da ngeen ma yombalal liggéey bi voilà bu ko defee donc euh, maa ngi gërëm ñëpp ñu fi teew à commencé par mon élément là le sous-préfet de Daaru Musti témoignage bi nga def ci moom nag bettu man ndax yàgg naa ko xam euh, ku baax la ku am engagement la ku mën liggéeyam la tamit yaafuusul ci liggéey waaw wax dëgg fa la jàmbaar la donc préfet ma ngi lay gërëm di la sant voilà donc euh, teg ci nag sama chef de service yi nga xam ne tamit kàcc ngaa laa ma euh, fu ma leen woo ci liggéey dinañ ma ci fekk si loolu tamit day daf may gën a yombalal liggéey bi voilà donc euh, ak monsieur la mesdames et messieurs de la presse yéen ay relais information yi yéen tamit am ngeen wàll bu am solo ci liggéey bi alors donc euh, waxtu baa ngi ñëw maa ngi leen di gërëm leen sant donc dal leen ak jàmm ci seen télévision bi ngeen taamu Rafah TV moo leen di jox xibaar yu wér te wóor ak Rafah TV kumpa tàggoon ak yéen